asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo mbokk internet yi te dañu ñëw wax si euh, donc benn sujet bu xamante ne itteel na yi mu nekk benn sujet bu xamante ne si coach la muy comme moo war a nekk suñu entraîneur fii Sénégal équipe nationale du Sénégal bii di euh, xam ne war na préparer éliminatoire coupe du monde war na jouer euh, coupe d' Afrique fële Maroc comme moo war a nekk suñu ñoo am nag ay candidats yu xamante nañ ne. entraîneur sénégalais yu privilégié gis nañ ne kii di Hervé Renard dem na du côté de Arabie Saoudite donc ñi fi nekk c'est Pape Thiaw Omar Daf Habib Bey euh, Malick Daf donc donc Serigne Saliou Dia wala Youssouf Dabo bi xamante ne moom jamono bi aussi am na club donc kan moo war a nekk suñu entraîneur si commentaire yi boo leen ko mënee bindee dina si baax trop bindee leen turam bu fekkee da ngeen bëgg argumenter aussi ce sera encore plus intéressant donc mbokk yi ki moo war a nekk suñu entraîneur ce sera intéressant ñu xam kan la parce que jamono bi may wax ak yéen nii euh, donc Pape Thiaw def na 4 euh, matchs

muy wax ne nice que ça soit les choix le faire, muy génn na laa mën le fait mu jël au milieu Sénégal yi bëggoon nañ ko xam bëri na ay choix tactique mu ñëw Ndiaye woon ay choix yu positif encaissé ñu bi dugal nañu ay ba euh, donc na ne day déglu c'est quelqu'un bu xamante ne euh, dëgërul bopp quoi donc mooy côté positif yi xamante voilà ñu bëri moom lañ nemmeeku mais Grégoire dafa ma Mohamed bokk si li xam euh, par exemple dans un match Sadio Mané gis ñu génn Sadio Mané loolu lu ma koy xaar est-ce que dina ko mën a def ak man nag si laa ko tontu woon en tant que présentateur mën ma wax sama xalaat ma ne est-ce que équipe yu mag yi dinañ faral di génne seen i grands joueurs euh, Portugal Ronaldo kii fa def dañ ko daax muy euh, coupe du monde jëlal Messi moo koy remplacer jëlal équipe boo leen mën a Ibrahimovic bu mu si nekkee dëgg di ko tuddee

amul amatuñu temps pour may chance ñu essayer néna instant bi ku paré lañ ku ñor lañu bëgg débat bi neexoon ñi ne ah say euh li fi ki def ñu tuy sax pap ciow pap ciow amna expérience jël saam li mu xamé Afrique est ce que Ami Bay xam nako est ce que tane xam nako né mu débat bu neex bu xamantene man tay yi à travers nak sama vidéo man mii ak sama chaîne man damay joxe sama xalaat dañ ko dañu am profil yu différent xam nga Pape Thiaw def na li mu def pap ciow wané na né mën na nekk un entrepreneur crédible wax dëgg fa yàlla et que Pape Thiaw li ñu dem ci moom sax nekk dama nekk adjoint Omar Daf mu bañ pour man loolu war du ko mas a nangu parce que def na ay match am et tout maintenant entre ces trois entraîneurs ndax man changé naa ci diggante bi man am bu njëkkoon moom préférence c'était Habib Beye parce que Habib Beye li ma neexoon ci moom li ma doon choisir ci moom donte xamagul Afrique dafa am poigne bu Aliou Cissé maanaam caractère bi pour Aliou Cissé am am philosophie bu Omar Daf xam nga Omar Daf am na un vrai philosophie maanaam de teg de teg bal bi mu daw jeu ay un bal maa ngi dugg Valentin ba dana man jaar naa club yu bëri mais bi ma jaaree euh, Sochaux gis naa un entraîneur bu am un vrai système un vrai philosophie de jeu maanaam li ñoom Pep Guardiola am kii da am euh, Omar Daf et Omar Daf def na ay preuve du côté de Sochaux en terme de football de jeu ay tous li ngeen di gis si ay amour entraîneur yu ñuy tudd fii Omar Daf lu mu am la donc là c'est ça mooy philosophie maintenant nag man ce qui li ma ragal si Omar Daf c'est est-ce que am na poigne bi est-ce que dëgëraay boobu caractère def li mu war def non le trouve que li am lii lii le côté bu bu Aliou Cissé am non am fulla bi caractère wax ne Omar Dia am fulla mais le côté poigne bu xamanteni des choix pour yi ñu dóor bi est-ce que am na kii boobu discours boobu quoi quelque chose ma dit que sama xel tay na foofu non et je me dis que Omar Dia Amna li lii Aliou Cissé am d'un côté et amna li Omar Dia loolu mo taxone ma choisir un peu Omar Dia un peu Habib mais c'est pas que Omar Dia Omar Dia c'est un excellent entraîneur parce que nek nit nit bu ñuul rek nekk entraîneur Europe c'est compliqué Nek africain nek entraîneur c'est compliqué Nek sénégalais rawatina mënoo gis très rare ñi ci entraîneur la xam ki nekkoon ki nekk Allemagne noonu euh, mbay lay donc mom mi do euh, Omar Dass. donc Abibé Beye mu ñëw dugg si nekk un noir nek entraîneur c'est compliqué man je me rappelle de Campbell benn moi, ñuy wax affaire euh, na laa ko a wax affaire de racistes yooyu noonu ñuy wax dëkku Bellator yi Campbell ancien joueur de Arsenal muy wax ne nekk noir nekk entraîneur c'est compliqué rawatina nag nga bëgg nek africain donc chapeau à Omar Daf c'est un entraîneur bu xamantene amna am na dégg-dégg philosophie man ñu jëloon ko du du ma nekk di casse man naan voilà on va voir maintenant bu ñu jëlee Habib aussi tamit c'est quelqu'un bu xamantene voilà le caractère est là le discours est là philosophie moom fi ba bay c'est un nouvel entraîneur nouvelle génération avec des idées yu bees quoi avec un autre regard ci football ma xam Pape Thiaw liñ ko mëna waxal man man loolu la gis mom je trouve que c'est un c'est un nouveau entraîneur avec des idées yu et voilà Maintenant, le na premier match que nous fi ñëw gis na ne foot match pas Nicolas Jackson donte nekku aussi mais il doit marquer son premier but nous Jackson dugal gis au niveau de l'attaque on marque on marque de punch mu dugal il fait des choix très forts et c'est des choix très payants aussi système. Bon, c'est le match contre Burkina c'était compliqué pour nous mu dugal la benn Habib Diarra Habib le but il sait faire des choix il xamante ne positif et aussi tamit discours pour euh, les plus anciens, les Kalidou Koulibaly, les Ganege, les Sadio et aussi pour, les, pour la nouvelle génération, les boys qui sont venus. Donc, c'est un, un candidat crédible et souvent, reste de faire Modjel San, Modjel San. C'est vrai que euh, Coupe d'Afrique, nous avons ni ka Aliou Cissé jëlee Coupe d'Afrique mom noonu la jëlee Coupe d'Afrique et je me rappelle Coupe d'Afrique boobu bu ñu soog commencé kenn xalaatul woon mu jël parce que dañ naan championnat yeneen yeneen gis jaraaf récemment dañ ko do dañ naan championnat ñoo ñu man mais moom fexe na ba teg un vrai groupe avec des amis camarades Lamine Camara euh, euh, de l'autre jour la latéral bi xam donc euh, joueurs yu bëri ak kii euh, pas Amadou Diallo on est franchement amone équipe bu baax a baax a baax ba gagner ci dëkk naari ko xam naari ak Sénégal naari yi la ñu mës a sonal mën nañu am équipe bu ñu neex naari yi ñu sonal donc man Pape Thiaw mu nek na un candidat crédible na Pape Thiaw suba bu nga jël ma duma ma ne du ma après les 4 matchs. je me dis que pourquoi pas mu nekk entraîneur et eh, bokk na li ma gën a neex si xaw ma naa ñeneen dinañ ko def bu doon damay votel li tax may votel Pathio bu fekkoon vote dafa am lenn rek la xam ne man maay ma sa buy national dama ne ça fait des années may toog fi di ko kaas par rapport ak sama copain Aliou Cissé pour mu def tournée européenne convaincre la température et bu may ba xam ne moom il s'intéresse à Ibrahima Mbaye de source sûre 100 pour cent pour ñu leer ndañ Le il à Ibrahim il s'intéresse à, à l'autre, la malte de Milan. Soit mon frère. si benn xeex am koo xamante point bi nekk stratégie mu bëgg li nga vous nekk point mën doxal ça mon frère C'est normal que de euh, mën nga changer avis pas pourquoi pas que Omar Daf bu ñëw pas que mais des trois des trois entraîneurs pour man suba bu ñu jëlee Pape Thiaw du ma kaas bu ñu jëlee Omar Daf du ma kaas bu ñu jëlee Habib Beye du c'est trois entraîneurs yu xamante franchement man nañu doxal équipe nationale bi ñu yor nak wax da dëgg fi yalla xaw ma nag yéex yéen ban xalat ak ban gis ngeen am propre à ça mais man ci ma gis euh, Habib Beye est un très bon profil Omar Daf est un très bon profil euh donc Pape est un très bon profil ces trois là man ñoy sama favoris maintenant ñeneen ni malik Dia Serigne Saliou Dia pourquoi pas je dirais pourquoi pas mais li Pape Thiaw pourquoi prendre tu vas à l'aventure euh, avec un senior Saliou laisse-le grandir en tant qu'entraîneur il a encore jeune veux veut tu a xaw âge par à ça c'est Malik Daf Il a des vraies idées là il a un girafe. est-ce qu'on est en ko pourquoi pas mais je reste convaincu que les trois entraîneurs qui xamante bëgg naa leen ñu yor c'est Pap c'est Omar Daf